waaw ñu ngi fii ci police yu Guédiawaye le maire de la ville de Ahmed Aïdara waaw kon ñoo ko gisandoo nii ñoo ko gisandoo nii waaw may na la fi ñu jëlee àjjuma te génn dëkk bi lu ci gis nag ñun la lu ci gis ñun la lu ci gis ñun la te dama ne la ñun suñu ngor suñu ngor suñu ngor mayu ñu amee alal nekk ci biir ñuy nekk ci biir ñu ñëw jàpp ñëpp ñu ci biir amuñu ragal Enkotek, sikot, ekos yon Chakisa, nou yon la matbe ser A ver, yon nou gen patbe ser, brinye Bwene sa, a dan li gen yon Gen patbe ser, enkotek, nan mwen atbe ser Nou yon la matbe ser, kibi Souni gen yon, souni yon Souni yon, yon yon Souni yon, yon yon Souni yon, yon yon Souni yon, yon yon Souni yon, yon yon Souni yon, yon yon taxaw ñoom ñoo la gën a xam li nekk ci réew mi li nekk ci réew mi ñoom ñoo la ko gën a xam ñu ngi nii taxaw. dañ ko mën bu baax léegi moom salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu leen yëpp ñun géejoo leen dëkk géejoo leen yaroo géejoo leen màggee ñu ngi dëkk bi dafa nekk di yoon man bi ma njëkk a ànd bare mooy kilifa yi kilifa diine yi dañu wax Macky Sall li mu nekk tegu ko dëgg tegu ko yoon yéen ñi nga xam ne jàngu leen lan mooy loi nan nga mën a amee équipe football di football nga ne remplaçant yi ñooy football fii député léegi ñoo fi bëri léegi bu kenn bu benn député dee kan moo ko remplacé lu di mës a am bii suñ ko bàyyee mu jàll nag jàppul leen ne suba bu ko keneen defaatee bu kenn ñaan njëkk Macky Sall moomu dëkk bi moomalu dëkk bi dëkk bi Sénégal yi ñoo ko moom si si moom dafay am ba gën a ñuy ko dañ leen di ñaan suñ jullee ba pare dañ ko bàyyi suñ ko Guédiawaye ñoo ko def góob wasalaam. fii lañ koy bàyyee sax. saa leen nii saa leen nii. aywa yow li koy def fii lañ koy bàyyee fii lañ koy bàyyee. fan la ñuy dem. fan lañ koy bàyyee fii lañ koy bàyyee. waaw fii lañ koy bàyyee. waaw fii lañ koy bàyyee. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn yàlla dañ ko yërëm financé ko yërëm ko jox ko réew mi lu nekk institution bu nekk mu taxaw fa di yërëm te sëriñ Seck gone yi ndaw yi defal ko social ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp